yéenekaay gi nee na mbëggeelu léegi li nga xam ne moo ko laal wàllum xaalis la waaye nag wàllum waroon tegi trahison gi ak mbaraan gi mel na ne tulleeg màlle am na xale bu jigéen boo xam ne nee na ki nga xam ne moo ko doon doxaan ab médecin la daf ko mujjoon sax piqûre ba du jël ëmb saa su nekk muy ànd ak mooma xale bu jigéen bi nee na ma am confiance lool ci médecin bi waaye nag ba ñu demee ba nga xam ne takk des na si dama bàyyi dem takk sama cousine moo tax jamono ji wàllum mbëggeel dama koo teg na le doyal naa sëkk ci góor am na benn xale bu góor bu dëkk benn tali moom ti ma ngi nettali waa bi nee na dafa am benn xale xale bu jigéen bu mu doon bëgganteel waaye lenn lu nekk maanaam defal na ko ko moo ko doon fayal am njàngama waxtaan ak i waajuram lépp na cook waaye nag ba ñu demee ba takk des si la ko xale bu jigéen bi wor moom xale bu góor bi nee na jamono ji wàllu mbëgge la maanaam yoonam nekkatu si bu xelam nekkee ci jigéen dana ko lijjanti ba am ko bu sa pare pare na sa wàllum digaate gi ne dama lay takk ak dama lay sëyal mel na ni ma màlleeg la nga xam ne maanaam moo ci aju loole lépp yéen kaa kaay gi di ko mi quotidien xëy na def ci gëstu bu yaato yéen a kaay gi di évidence nee na maître Moussa Diop mi nga xam ne mooy directeur général bu Dakar dem dikk bu ñu ko dàqee bu mu leen bett ginnaaw kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko ne ñetteelu mandat ci dëndu Afrique coup d'état la loolee bëri na ñoo xamante ni ñoo ngi koy laam-laamee ne soo muy tuulee danañu ko dàq bu passé loolu Dakar dem dikk kër googu nga xam ne maa ngi si ay jafe-jafe yu të dakk yéen i kaay gi di réew mi quotidien xëy ci wàllum dialogue politique bi nee na ku jege Front national de résistance ñoom nag jamono ji bëgguñu Aly Ngouille nee nañu duñu nangooti benn yoon Aly Ngouille Ndiaye organiser li ñuy sàkku maanaam mooy kilifa goo xam ne gu tëddee njaaxaanaay lay doon njiitu njiitu réew di président Macky Sall moom nag yàgg nañu ko wax na ko ministre de l'intérieur na maandu ci élection yi waaye la mu doon wax maanaam du ko def tey du ma ko def ëllëg Macky Sall nee na loolee faux débat la yéen a kaay gi de la témoin nee na politique bi am na ci lu bari loo xam ne ak déggoo amu ca jëm ci wàllum chef de l'État ak chef de parti ak bulletin unique waaye nag li nga xamante ni moo am ba des daal nee na lii lépp diversion kese la maanaam ay caaxaan la amul benn sens andi fi ab débat boo xam ne kenn ku nekk di sa ngawte ngawte Ousmane Sonko nee na loolee waxi wayaa wayaa la intéressé wul benn yoon Sénégal yi nekk fi di fi wax chef de l'opposition loolu ñi nga xam ne ñoo koy wax la intéressé waaye askanu Sénégal tal nañu leneen li ñu tal mooy jafe-jafe yi nga xamante ni jamono ji ñu yore nguur gi teg nañ leen ko maanaam la askanu Sénégal tal te ñi nga xam ne ñoo fi nekk li ñu bëgg diviser opposition bi maanaam xaajale leen la ñu bëgg Ousmane Sonko nee na nag bëri na ñoo xamante ni ji opposition bi ñoo ngi séq ak pouvoir bi ay relation yoo xam ne baaxul ci askanu Sénégal yéen a kaay gii di Dakar Times dikk ci lu jëm ci wàllum déclaration patrimoine lu toll ci quarante cinq jours yi nga xam ne Macky Sall may na ko ñi nga xam ne defuñu ko woon ca kanamu OFNAC délai ba daat nay jeex ni ki démb yéenekaay gi dikk na si ñi nga xamante ni dañoo ëllëwle bañ koo def ak daan yi nga xam ne maanaam moo leen si mën a fekk yéenekaay gi di Sud Quotidien xëy nag ci OFNAC nee na su passé déclaration patrimoine am na beneen xeex boo xamante ni moo war waa OFNAC muy xeex lépp loo xam ne jëm na ci wàllum paradis ko maanaam xaalis bi nga xam ne dañu koy rawalee bitim réew waxuma la Sénégal waaye réew yu am doole yi sax xaalis bi nga xam ne moom lañ fay génne di ko rawalee da leen di solal rawatina réew mu mel ne Sénégal jamono ji nag jot na réew yëpp àdduna bi maase daal di koy xeex yéen kaay gi nee na lu jëm ci wàllum déclaration patrimoine bëri na ñoo xamante ni mën nañu ko def def ay fausse déclaration wala ñu def ay prête-nom yéen kaay gii di réew mi ko di jeexee yóbbu ñu Malika askan wa nga xam ne ñoo fa yeewoo niki démb dañoo janoo ak tas ko do xabaar yi ñoom nee nañu sonn nañ tay nañ damm nañ dee nañ ci baar yu bari yi nga xam ne moo am Malika ak auberge yu bari yi nga xamante ni moo am Malika ak kër yi nga xam ne dañu koy luye Malika foofee ñi nga xam ne ñooy cagatu ñoo fa nekk xale yu góor yi xale yu jigéen yi mel ni tulleeg màlle sàngara sa nag yomb na fa loola moo tax askan wu fa dëkk ñoom ñoo ngi dànkaafu ba pare di ci woo état bu Sénégal ngir mu daal di koy lijjanti yéen kaay gii di Vox Populi xëy di ñu xamal lan ñu commerçant yi nga xam ne ñoom lañ jëlee woon Sandaga yóbbu leen champ de course ji ñoo ngi sonn ba maara de taal yi ndax gisuñu benn client nee nañu fa ñu nekk dafa ruqee yéen kaay gi xëy yóbbu ñu diwaanu Côte d'Ivoire nee na nag foofe église catholique bi ñoom ànduñu benn yoon ci ñetteelu mandat bi nga xam ne Alassane Dramane Ouattara bëgg na ko def Alpha Condé daat nay nangul waa partem nee na leen nag d'accord na ngir nekk candidat ci élection présidentielle présidentielle yi nga xam ne moom nag lu jëm ci wàllum déggoo wàllum salaire Kalidou Koulibaly ak waa Manchester City loolee fare na boor maanaam ak déggoo daan ama Kalidou Koulibaly ma ngi déglu kilifay Napoli yéen kaay gi nee na moom nag waa Chelsea dañu ko bëgg Neymar nee na Paris des yéen kaay gi sunu làmb ñu xëy fekk fa Gaston Mbengue mu yàkk lu mel ni xamee ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux nee na moo créé Gris Bordeaux waaye nag nee na comme bëggatul ko